leen dóor ay kii ay fee la yoo xam ne nii ñoom ñu ngi koy def gis nga ni ñu dem bay war te gis nga communication de crise dafa am dafa am ni ñu koy defee xam nga sëñ mun Muntaxa keroog bi ñu ko yëgalee ñi doon manifester ci kii beeg yooyu ni mu waxee yab leen ne sëñ bi nee na ngeen dellu seeni kër ba nangam loolu mooy communication de crise mm-hmm. au moins ni ñi danañ toog di xaar loo teg seen loxo mu jar nag après la ngay teg seen loxo tamit mooy tax ëllëg boo bëggee waxaat ak ñoom ñu teg. maanaam tey li Macky Sall la waxoon tey ne xam na nañu ca mars. Mm-hmm. est ce que bu waxaatoon boo xam dana am valeur comme ni mu amee woon. tant plus que ne say waa kër tamit taxaw nañ fu ñu jaar ne say wax say kàddu wérut maanaam mooy waxi chef de l' état comme nee na woon du ma mës a def trois mandats ay waxam nangam moo tax xoolal foofu kàddu nga ba pare nga fol gone yu reew yoo xam ne nii xamuñ na ñuy waxee li ñuy wax lu dëgg fenn kese muy Mame Mbaye Niang gis nañ li mu wax dara du ci dëgg. koo xam ne ministre tourisme nga nga nga jiite. la nga jiite ñu la cay xaar rëtal nga touriste yëpp daw nañ sa procès ak Ousmane Sonko da ci am yow yow lañ la dénk rek waroon naa tax nga promovoir ko ba sam mer nga nga même bu la nit doon wax lu bon sax nga muñ ko ngir am résultat maam li ñuy wax contre productif moom daf ko defal boppam loolu benn la Pape Malick Diouf ñëwati moom it ak Seydou Gueye ak ñooñu jël lépp ñoom daal du seen responsable te alors que lii ñu def nii yëpp benn responsable la mooy Macky Sall parce que boo ñu la falee xam nga dañuy fal fal mooy élire bu ñu la éliree nga nommé mooy tabb ñu ngay tabb boo tabee ñu baax bu ñuy amee sax bu ñu génnee seen xel dal seen xel dal mais ñii bu ñu génnee dañ ñoom la ñuy gën a jéppi ñoom rek daay guy tàkk lañu bu ñu waxagut. d'accord. Euh, ban jàngat nga am ci déclaration euh, police nationale bi démb. Euh, déclaration boobu bon juste dañuy def lu doon accepter ñoom la ñuy wax parce que xëy na mën nga fi teg leneen ñun en tant que euh, personne en tant que koo xam si ni mun nañu ko ñun lii la ñu am quoi ñu fi toog di wax parce que on était pas habilité toog di def recensement beeg yu demee noonu donc donte nag affaire yi wute na ndax ñi dañuy génnee nombre bi. ñuy génne nombre bi mu nekk loo xam si dafay confus si xelu Sénégalais mais juste que. affaire yi daal doy na waar jamono bi ñu toll nii juste que damay ñëwaat ci ki nga wax sànq muy internet bi nga xam si moom moo duggoon keroog di ko wax ju demee noonu ca démb laa ko gis ci kii ci réseau yi mu nekk lu lu lu doy waar lu mu wax noonu kenn mënu na comprendre parce que boo xool sax commentaire yi gis que ni Euh, ñi ngi naan ko li c'est pas acceptable lu nekkul lu lu ñu naan comme ni ko saa waxee sànq mm-hmm. euh, ñu jàpp que ni xëy sax ñoom bu ñu ko defoon ba koy kii dinañ sànni feneen sur ci ay plage ndax géej moom yaakaar ne lu si bokkul dina génnaat loolu tamit euh, mu nekk doy waar ñu bañ daal di accentuer wu tiital ñi xam moom mooy askan bi parce que jamono bii nii dañu soxla psychologiquement ñoo xam dañuy dañuy seen son ñu naan Ah. mais pas loo xam ne si ni euh, xam ne dafay nekk di tir askan bi si jamono bi ñu toll nii du sur rek sax dafa wax sàngul am solo moo ci andil ay parce que jamono bi sax dafa wax que ni euh, pour mm. waxee mm. daane bi mm. euh, que jamono bi jàpp ngeen ni bi kii di Macky Sall wala gouvernement mën na leen togloo est que jamono bi ki leen war a mën a togloo du Ousmane Sonko comme ni koy waxee parce que nee nañ sax jamono ji manifesté woon ba pare sax bu Ousmane Sonko ne leen woon bu benn mbari fanaan Sénégal duy fanaan mu nekk loo xam ne du ko gëm. xam nga jotee mm, jotee moo leen war a toog jotee mm-hmm. day jiitu joote. wolof nee na jote day jiitu <laughs> non jote mooy. nit xam nga jote day jiitu joote mooy jox na nañ la sama numéro. Mm-hmm. nga woo ma wax wax ju rafet nangam nangam amoon nañ jotaay tey yaa ngi ma woowaat hésité wu ma ñëw. Mm-hmm. danga maa jot. ci njekk moo tax boo nekkee ci joote mm-hmm. soo mu wooyee damay ñëw ñii nag mënatuñoo kii jot kenn ñoom far loolu mooy wax ji mooy moo tax kàddu dafa baax am na ñu naan ma nit <laughs> daa war a respecter aîné bu bëggee gudd fan xam nga respecter say aîné mm-hmm. weesuwut ngay wax dëgg xam nga man bu dee yaru moom mm-hmm. ab yar moom yaakaar naa ne liñ ma ci defal kenn kii sëñ Tuubaa nag dafa am lu mu wax nee na yar tekkiwul ne jukk yu ba yu bon yi nekkoon ci yow yëpp dafa dañ déedéet dañ koo denc fu làq yeggut su nit man manee ba yegg ca nag matu koo bañ a wan te sëñ Tuubaa euh, plus non violent que moom ti meur te yi ay kàddoom la foofu lay waxee tey mënoo amam réew dénk ko ay nit ay mag ñu war a defar ne fi ñëw di def yi fi xamadi ba taal réew mi alors nga bëgg man may wax saa wolof di leen jox teggin teggin buñ koy wax yoonu gaaw taxut teggin yoon wi dana nii jub xocc mu am ay agresseur wala mën a am ay dëkk wala nangam naam nga xam ne boo demee man ngaa dajeeg lii waaye am na weneen yoon wu dëng woo xam ne nii alors bu yoon wi nekkee un kilomètre boo jaaree ci yoon wu dëng yi mu nekk trois kilomètres mais nga teggi jaar fa loolu mooy baatu teggin ci wolof teggi xàll wi léegi nag bu fekkee ne yow da ngaa bëgg lu gaaw <laughs> jarut teggi tey dañoo nekk ci moment de crise wax li nga xam ne moo xew dëgg loolu mooy li nga xam ne moom ñi mu nekk seen responsabilité dañ leen wax liy dëgg loolu lañ nekk di def nii ba pare pour démystifier affaire parce que man mi di wax nag baataan moom muy vocabulaire wolof am naa ci lu doy sëkk lu ma bëgg a wax rek bëgg naa su ma ko waxee rek maa ko jublu maa ko tey parce que dama bëgg ñu delloo si waat seen xel parce que nappaate gi ak xuppe gi moo fi war a jeex gis nga mbaax gi ci ñun fii la ko l'islam fekk fii la ko christianisme fekk dañ koo yokk fii lañ fekk jóobal ak njaay kal séeréer ak tukulóor joolaa fii lañ ko fekk pourtant terewuñ ñu ko pourtant fekk nañ fi xaxar xaxar doon nañ ko xam fekk nañ fi laabaan pourtant laabaan du lu yi mais jubluwaay bi li li tax lislaam bëgg jigéen sàmm boppam laabaan da la koy may njong xaraf xarafal jigéen fi la ko lislaam fekk da ko encouragé comme ni mu encouragé bu góor ñun ci suñu culture lu tax ñu dindi ñu dindi ñu dindi voilà affaire bi ndaxte 13 heures mu jot te dafa war a def émission seen kàddu bi. waxtu yi daa xocc. voilà <laughs> waxtu yi daa xocc. xocc xam nga luy xocc xam naa dañ koy euh, jeexalee vague d'arrestation yi comme euh, ni ma ko waxee tout à kii di mhm. euh, Ngagne Demba Touré moom ñu daal di koy jàpp itam ni ki démb ñu gis ki nga xam ne moom mooy Baara Ndiaye moom tamit ñu daal di koy fekk ba ca këram fële ca Rufisque daal di koy jàpp gis nañ sax vidéo yi nga xam ne mi ngi circuler ci internet bi. man de la ma ci waxoon rek xaj na sax bu ma génnee ñu mbaal ma jàpp ndax fi ne nii moom jàpp waaye gis nga ko war naa la vidéo boo xam ne préparé naa ko xanaa ñàkk réseau mooy tax buñ ma jàppoon du ma ko teg pour wane ne nit ñi ragalatuñu xam nga ñun man li ci man moo nekk ci baar soxna si mille 2014 ba nëgë ni amul mars bu mu fi am Sénégal wala ñaxtu fekk ma ma wér te dew ma wala kon lu rëy may kii mais mën naa laa mën naa laa wax ne masuma masuma sànni xooxu buy waxantuma laa xeer. mosuma taal jamonoy euh, Karim yi noonu fekk naa sax ànd ak manifestant sax ñuy taal may leen may may may may tere fekk naa ñu kar arrêté biis jamono nar koo defal bagage ma taxaw ne leen déedéet man mais dama balaamewul kenn kuy taal wala kenn kuy toj man duma ko def parce que bëgg naa dund ba faatu duma mas ne mas naa sànni dara ci mbedd wala mas naa def lu boo xam ne dafay ànd ak incivisme loolu man la mais koo xam ne nii saaga saaga yi duma ko def même bu ma dee wax ni nit fen mën a la da dafa fen wala du dëgg loolu du saaga mais bu ma doon saagakat ñii jar nañu ma def loolu su ma doon ku def leneen it jar nañ ma def ko mais man maa melut noonu moo tax man du ma blâmer ku koy def parce que problème ku ko def rek am na naqar wu ñu teg réew mi woo xam ne yaa ngi koy def encouragé wu ma ko nag man li ma d'accord tey mooy sénégalais yépp ku bëgg liy jeex ñëpp joxante rendez-vous bés jarul sax sol sagar yu xonq sol lu weex tàll mat un million et quelque ci mbedd mi sigi ñu ne Macky leneen lenn lañ soxla ci yow nga wane ne carrément sa mandat bi da nga koy yeggale ci jàmm ñi nga sélectionné pour ñu bañ a bokk amatoo droit def ko wane ne ñetteelu kay doo ko fi def maanaam doo doo doo ko fi def la wax sax doo ko daal di jibalaat muy candidat teg dëkk bi ci yoon fekk exiger woo ñu ko dañuy exiger nga démissionné mu génn exiger bi ñu continuer ci loolu mu civiliser loolu laa bëgg mais bu ñuy bàyyi mille personnes di xeex xeex bi ñu di leen brutaliser surtout ni leen ni police war a mën a jëflante wala ay nervi génn yooyu lii lay jur mooy ñooñu du ñu am benn moyen bu dul sànni xeer te alors sànni xeer mën nga toj bopp alkaati boo xam ne ku baax la loolu laa jàpp wala mën nañoo sànni grenade koo xam ne ni wala tiré bal mu rey nit kenn warta dee man déegi bala ñuy wax ay biens yu ñu yàq man biens yi tus man li ma gëm mooy naka Nagasaki la xaw ma Hiroshima bu Japon mi ngi nii moom Japon bokk na ci réew yu gën a teg te yooyu lañ si biiroon kon matériels yi ay nit ñoo ko fiy defaat te yor Sénégal yor na lu ko mën a tabaxaat ba mu doy Sénégal moo war a mën a gën a neex Qatar kon man yi ñuy yàq ak yooyu yëpp ànduma ci yàq waaye rey gi ak làggal xam nga boo ñëwee ci dëkk jël manifestation def ko mu yem ak terroriste daanaka booy jàpp nit ki boo naree jàpp manifestant bi lam ko doon jaral xam nga bu njëkk manifestant bi bu ñu ko jàppee ñaata fan lay def bu baree ba bëri ñetti fan la te day fekk mu nekkoon vendredi lundi dañ koy bàyyi léegi dañ lay jàpp fàtte la fa loolu moo bon moo tax booy topp nit ki la mu koy jaral su la mënee gaañ dal fi lay gaañ wala nangam te alors que bu fekkoon jàpp nit ki rek daal koy yeewiwaat dootul jar dara gis nga problème bi mooy nga daal di tënkaat lënkaay gi muy internet bi yaa ngi def lu gën a bon si Lamine nee woon na cin liy baax faaw nga ubbi tuuti kubéeru gi kubéeru cin li coolal li di génn soo ko deful day féet mooy day kalaate sa kaw loolu lañ nekk di def boo tëjee nit ñi seen liberté ba pare tëj internet bi lan la nit ñi di dese muus sax boo ko karkaraloon fii day dem sa kaw Macky Sall ci boppam li ma gëm mooy moo mënatut a continuer mënatut a defar Sénégal lu mu fi la Sidi Lamine waxoon rek feeg mi ngi fi ñuy gën a sonn te loolu tey la waay gën waalo gën a aay man mhm. na nag génn déclaré tey lii moom rek moo ko war a mën a saafara ku yor sa dëgg ba koy wax nag nga am fit man li ma dul d'accord mooy ñi nga xam ne genre neutre saytaane yi bu ñu waxee naan politiciens yi bu ñu fontoo alors ñeneen ñi nag kon koy yamaleel noonu gi ci ñëpp dafa am ku yor yat bi di dóor am koo xam ne mooy kii kooku nga naan bàyyil dóor yi loolu mooy dëgg mhm. ku yor sa dëggu wala nga am fit bay wax da nga koy wax fa mu safe ku naan bu ma fekkoon jamono yonent bi nag bokk ci saxaaba yi fekk coow lii sañoo wax dëgg gi fa mu nekk te dañ na nag jihaatu borom xam-xam bi gën a euh, nitu diine ki gën a kawe mooy ki mën a jàkkaarloo ko sultan di ko wax dëgg boo waxee ne ma fekkoon jamono yonant bi xeex nekk ci wetamit soo fekkee lii noppi ci boo ko fekkoon te naaw fekk ya ngay bokk soo ne woon bu ma fekkoon jamono Lat Joor bokk ci ñiy def nangam nangam soo ko fekkoon te jaam ya ngay bokk soo ne woon ma fekke woon jamono tubaab foofu nag laay lancé waale benn appel appel pouvoir bi dafa jóge woon ci ceddo yi xam nga lu ko fa jëlee bi tubaab bi rayee Lat Joor daa jàpp doomam mbaaxaan jëli doomi Alburi muy buuna jël doom yi euh, ca Yaasin Joor Golo Gànna muy Salmon Fall jël doom yi Demba Sall may sa mbay Sall jël ñoom duuduma mbay ak ñëpp génération boobu maas googu yóbbu leen ci benn école bu tudd école des otages rebaptiser ko te tuddee ko école des fils de Sèvres doyu leen ci mu yóbbu leen Tunisie loofoon leen xam nga luy loofoon mooy formation maanaam li ñuy wax lavage de cerveau cenc maayen soppi seen xalaatin yi indiwaat leen fi seen bàyyi jiite woon mu jiital leen fa ñuy doxal li tubaab bi bëgg ñu amoon jom ci ci ci ci ci garmi yi ak ceddo yi mhm. seen amatuñu jom yi topp leen daal leen di jàppee ne leen c'est des vendus du mooyu leen ne leen da ngeen fi nekkal nguur wala da fi nekkal tubaab bi ñooñu nag dañuy doon xool résistance bu ñu kii ci la seexul xaddim di doog a jamono yooyu lay woote ñu daal di dem ànd ak moom ànd boobu ñu ànd ak moom nag am na ci ñoo xam ne li mu indi muy diine moo leen kii donte ne ñoom ciy jullit lañ nekkoon mais na ci ñoo xam ne bañ a tax ñu dem bi ñu yeggeeti ñoom nag ñi ci meloon noonu nga xam ne bañ gi rek moo leen indi sax du def lislaam leen convaincre wala dara ñooñu ngay gis ku ci doon géer mu di la ëwloo téere wala dindi ci yow ak rëy loolu nag moo tax tubaab bi bu tuddee sëñ Tuubaa terroriste wala force occulte foofu la ko teg parce que dafa am ñu mu ragal ñoo xam ne c'est des gangsters nangam nag ñu ñëw ànd si ak moom moo taxoon tubaab bi ragal doon tubaab bi dem na ba enquête xam ne sëñ bi parce que dafa am benn commandant boo xam ne mooy kenn ki baax ci ñoom ñëwoon pour xool réellement lan mooy Seexul Xadim mu am ak moom wenn waxtaan mu ne ko sëñ Tuubaa ne ko su max di ñëwoon imam Mahdi xam nga danañ ne day ñëw te nit ñi dañoo war a ànd ak moom xeexal ko mu ne ko bu ñëwoon jamono fekkanteeg man jamono du ma mën a ànd ak moom ndax dama jaayanteeg sama borom ne du ma rey yoo weñ sax du ma ko wax rek waxantuma la ak nit kooku moo indi rapport boobu gis nga rapport yi ma lay wax ni boo demee archive nationale Nantes France tubaab du nax boppam loolu c'est des rapports militaires lay dëgg rek lañ fa yóbbu. da nga koo dagg ca xare ndende danañ am yeneen jotaay man du tàgg